dal leen ak jàmm mbokk internet yi ab waay ci góor ju am lu toll ci fukki at ak juróom-ñett moom la yoon tegaat loxo ci wàllum faux billet ba daal na ko mujj nañu ko déféré au parquet ginnaaw si nga xamante ne yoon bàyyi na ko ci lu yàggul dara ci mbirum sàcc moom xale bu góor bi sant Njaay déféré nañ ko au parquet démb ca Jurbel ngir jëfandikoo gu mu doon jëfandikoo xaalis boo xamante ne daanaka baaxul bu ñu sukkandikoo ci xibaar yi tukkee ci waa Source A moom xale bu góor bi delluwaat na ca loxo yoon takk der yu commandant Fall waa ji nag dafa doon doxantu ci diggante Touba ak Mbàkke di jëfandikoo xaalis boo xamante ne baaxul maanaam faux billet waaye yenn ci ay gérant multiservice yi nga xamante ne jot na jëflante ak ñoom ñoo amoon na ñaw njott ci moom dal di koy mujj boole waa gendarmerie ca noonu ca la waa brigade ba daldi wàcc ca bërëb dañ ko wax ne ko fa la nekk ba ñu fa yeggee ca lañ ko fekk foofu ak ci mbiram ñu jàpp ko loxo ci poos waa bi teg nañ ca ne ñoom nañu jaar ci ñetti multi service yoo xamante ne daanaka waaje jaar na fa ba nag leen ca foofu jot nañ fa dajale lu toll ci ñaar fukki junni ak juróom ñett ci xaalis bi ko waa brigade de gendarmerie bu Mbàkke tegee loxo nag moom waa ji Njaay dëkk ca quartier Soura ca tuuba weddiwul benn yoon mbir mi nangu na ni moom moo doon jëfandikoo yooyu le faux billet waaye nag la mu layalee boppam mooy dafa jël ab téléphone am jaay ko kamu ko jaay nag moom moo ko mel ni ku naan moom ñi ñu jàpp ne moom moo doon teg dil mel na ni dañ ko teg dil moom itam lu ci mënti am dall ku ñuy jiñ dëmm war nga moytandiku di seeñoo yaxu liir ndax génn kaso barki démboo njaay ci mbirum sàcc ñu fekkaat la tey ji nga nekk ci wàllum phobie boo ca bokk lit wala boo ko tayu lit setal la du yomb lii lañ leen indi indiloon ci xibaar Tactic TV mi ngi leen di jaajëfal